ma liral leen communiqué wu tey bi tey àjjuma ñetti fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na examen test yi ci téeméer ak juróom fukki ñett ak test yu ñu def fukk ak ñaar ñoo ci positif fukk ak ñaar yooyu juróom-ñaar yi ay cas importé la mooy cas yu jotee bitim réew ma yëgal ne juróom-ñaar yooyu suñuy mbokk la compatriote yu demoon tukki ñëw ñu tey leen fële si frontière Vélingara biñ leen testé le 29 la ñu yegsi ñu gis ne ñoom dañoo am jàngoro bu dul juróom-ñaar yooyu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 juróom benn fukk ak juróom benn yi wér nañ benn carré décès lañ am ak kenn ku ñu évacué ñu jàppatay ne téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo nekk tey hôpital ñu leen di toppatoo ministère la santé et de l'action sociale mi ngi wax population yi ñu continuer di respecté li ñu leen digal pour que ñu mën a gaaw ci xeex Covid 19 bi maa ngi leen di remercier bu baax.